canta ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 li gën fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek ay portable yi nga xamante ne rek kii di Khalifa Sall moom moo ko dal di woon moom moom la ñu daal di sàcc fi nga xamante ne rek moom mooy ca morgue hôpital principal bu Ndakaaru kii di Khalifa Sall nekkoon ancien maire bu Ndakaaru nag daal di nañu koy sàcc moom président bu plateforme taxawu Sénégal nekkoon candidat ci élection présidentielle yi nga xamante ne rek moom la ñu génn niki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci moom ci jëmee boppam rek daal dinañ koy sàcc ay téléphone portable am yoo xamante ne rek ci ab levée du corps bu Gaston Mbengue la woon niki alxames yem ak ñaari fan ci weeru avril ci atum 2024 ginnaaw bu 11h jotee foofa ca morgue hôpital principal bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañ koy jot niki tey jii yem ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai moom ci jëmmi boppam rek pour mu gisaat nag yooyu les téléphone am ba nëgën ni rek kenn mënu ko woo jot ko moom maire bu Ndakaaru ndax sàcc bi ci jëmmi boppam rek daal dinay sàcc ay téléphone am ba nopp rek coupé kook monde bi mu nekk mbir yoo xamante ne rek mbir mu doy ginnaaw bu ñu gisee rek intime yi ci boppam rek ci biir famille bi rek la doon daal di passé ginnaaw bu ñu amee ay nouvelle moom nag dañoo daal di xam ne rek ne lii di ay portable am nag dañu ko sàcc ci jour bi nga xamante ne rek ñu ngi doon jébbal Gaston Mbengue boromam ci lañ ko daal di cambriolé mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu doy waar la jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee bone bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw